bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax ñu ngi fii ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisub Serigne Mouhamadou Lamine Bara Niang imam mi nga xam ne eh, waa doom la ci ku tedd ki jarbaat la ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax ku ne xam na ne soxna Astawalu Mbakke mooy eh, mooy waajuru soxna Mati Bousso ak soxna ak sëriñ bu soobee ak soxna jaareetullaahi Mariama Bousso soxna Mati Bousso mooy waajuru sëriñ Njóogu Mati Ñang muy waajuru sëriñ Baari Ñang sëriñ Bousso Bousso mi ci topp ci soxna soxna Mati Bousso ab taawam bu jigéen di waajuru di di doomi soxna maam Faati Balla Mbàkke moom sëñ Balla moom maam Balla Aysa seenub taaw di soxna Xari Bousso mooy waajuru sëriñ Baari Ñang mi nga xam ne moo waral bis bi bis bi nag ñun ñëpp gis nañ ko ak taxawaay bi ci am gis ngeen ne màggalu bëccëg la ko sëñ bi def ren mu nekk lu am solo ak xat-xati jamono ak sànc yu bari ak yeneen yoo xam ne euh, yi jëm ci kanam te ay nawet ne ci moo tax sëriñ bi ne nañ koo def ba déwén na jàmm. teg li borom màggal gi waxoon ne ku fi teg sa tànk ñu jëggal la loolu nag lu neex a gëm la ndax nit ki lu mu tilim tilim wala ay yéreem lu mu tilim tilim. lom ca mën a def ak lu mu mën a tilime saa su ko bëggee fóot rek bu amee jumtukaay mën na koo fóot kon nit ki lu mu sonn saa su demee fa barab bañ koy fóote boo fa àggee mën naa set wicc kon nag loolu mënees na koo gëm ci borom yi xel kon nag barab la boo xam ne barabu njëkkalaa kon la mboolem koy doomi Sëriñ Tuubaa daana ñëw fii daan fekk Sëriñ Bara Ñang kon nag loolu daa nekk lu am am solo loo xam ne ñun ñëpp bàyyi nañ ko xel te gis ngeen ne kilifa yi fi teew yëpp bari nañ takku nañ du ma ko mën a lim waaye nag man maa ngi waxee ci turu euh, um, waa turu waa daayira sëñ bi yëpp ak fédération bi waaye itam di turu uh, silatu rahim monsieur waa waa daayira Serigne sëti Serigne Bara Niang yëpp ñu ngi leen di sant bu baax nag waa sëti Serigne Bara Niang yëpp di ko tàmbalee Serigne Mouhamadan Bousso ak soxna uh, ak Serigne Fallou Galas Niang ak soxna Fatou Niang mi nga xam ne mooy doomi Serigne Niang ñooñi ñoo mag ci sëti Serigne Bara Niang yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu ñu ko tegee seen loxo teg nañ ko loxo yi waa sëti Serigne Bara Niang yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla kattanal leen wéral leen def nañ jëf ju rëy nag yoo xam ne dajale nañ seen alal dajale seen lépp andi ko jébbal ko sëriñ Abdourahmane Niang mu ànd ak ñoom ci màggal gi kon loolu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu ngi sant bu baax itam waa daaira association euh, am ànd suqali ko suñu gox waa daaira jom bay maxtaar ay jàmbaar lañ lool sëriñ Issa Dieye ñu ngi koy sant bu baax mook sëriñ Basirou Ndiaye ñoom ay jàmbaar lañ yoo xam ne ay jàmbaari fàkk dëdd lañ yoo xam ne lu sëñ bi xew leen ñoo fi njëkk ñoo fi mujj ànd ak seen alal ak seen doole ak seen lépp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñu ngi sant bu baax waa kër taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ bi bokk na ci taalibe yi nga xam ne mooy waa kër Alé Niang ak waa daayira Tëngéej waa daayira waa ak waa daayira Dakar bi ak waa daayira eh, Saloum bi ak waa daayira eh, eh, ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci ànd ak sëñ bi ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax euh, nit ki amul lu dul kër sëriñam bu sëriñam amee xewlee mu taxawu ko liggéeyal ko ba ca am am ca ngërëm loolu nag ngërëm a sëñ Tuubaa la te wa ma shahidna illa bi ma nit ki nag li mu seede lay xam li mu gis rek lay mën a seede kon nag li sëñ bi seede ëllëg yoomal xiyaam mën na koo seede suñu diggante ak sëñ kon nag loolu ñu ngi leen ci ñu ngi leen sant bu baax a baax ñu ngi sant nag euh, mboolem waa Baxdaat baxdaat gépp nag nga xam ne ba sëriñ bi tàmbalee ba tey liggéey bu sëriñ Tuubaa bi ñoo ko mas a ànd ak ñoom moom nekk moom guddi ak bëccëg muy taw muy naaj muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw mboolem waa baxdaat gépp ñu ngi leen sant ci njiital soxna Jaal Njaay sëriñ Maysa Saw ak sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ euh, Alxaaji Ñang ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak sëriñ Mbàkke Jaañ mi nga xam ne moo moo mooy kii mboolem daayira yi itam ni fukki daayira ak ñaar yi nga xam ne ñoo lënkaloo yu bukkat ak bitim ak dakaar fukki daara naar yi nekk Touba ñoom ñëpp it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm ak tawfeex ak saatu daara ni sant nañ gërëm nañ xëy na bu ñu limee mën nañoo juum lool waaye nag sant gi mënut a wees sant ni nga xam ne noonu la ku ci kër gi set set wit ci bàkkaar yàlla na ko suñu borom fay ñëpp seen aajo ci barke Cheikhul Khadim sëñ Abdourahmane nag nag jàmbaar la joo xam ne jàmbaar la joo xam ne kenn xamul doon ndax ak woyefam mën naa làq ku nekk waaye nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaana suñu borom gëddal alfanam te wéral ko sàmm ko te mu àggale yéene yi mu yi mu yi mu nangoo ci waajuram ya ak magam ji ci bàkki Cheikhul Khadim mbaar mii nag nga xam ne moom la tàmbali muy mbaarum safar mbaarum kër sëñ Baara Ñang ngi koy soññi mboolem koo xam ne taalibe nga mboolem koo xam ne taalibe mbaar mi nga xam ne moom la Cheikh Abdourahmane sanc sofele bañ fondation ku ñëw ci màgg gis nga mbaar mi ni mu toll ak xam ne xaalis bu bare bari moo ci dem te sëñ Abdourahmane nag mu yónnee wut yeble wut waxut kenn dañ ma laaj addiya ñun ñii ñoo war a am suñu xelum bopp nag ñi bokk ci kër gi fexe ba tabbal ci seenu ñaq jaayante nag laaw bañ a xaar kenn ko lay sas ndax ab ab ab taalibe lim warlu ab sëriñam mooy lépp lu muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa kenn bañ ko ca man ndax sëñ Muntaxa day wax ne sëriñ Basiiru moo ko waxoon ne Sëriñ Tuubaa nee na ko Sëriñ Tuubaa foo ko tollu ma toll fa Sëriñ Tuubaa foo toll rek mu toll la fa alal adduna ji nga xam ne buñ dee buñ dee ñàkk ko nañ fexe ba bañ cee liggéeyal seen liggéey liggéeyal seen tubaab ba bu ëllëgee ñu mën cee jariñu ndax fii lañ mën a fàggoo suñu ëllëg te fi ñu mën a fàggoo suñu ëllëg nag mooy fexe ba dundoo suñu njaboot waaye fexe ba itam bay liggéeyal seen tubaab liggéeyal seen tubaab nag mënul weesu nga am sab sëriñ boo xam ne sasu la dara wékku la dara te wóotewul dara lu dul liggéeyal seen tubaab lu mu woote war kenn wur la caa mën a jiitu soppe itam ñu ngi leen ñu ngi leen ci gën a soññ bu baax a baax ñu gën a xam ne mbaar mi mbaarum safar la fukk fan ak juróom ñu koy ñu koy ñu koy màggal di ko teertoo màggal gi loolu ku nekk war na ko mën a bàyyi xel te juróomi at yi di ñëw yëpp màggal Tuuba ay nawet lay doon te loolu diir bi ñuy jaamu yàlla ak diir bi ñuy bi ñuy waajal màggal gi loolu bu amul lu muur ba mën caa jaamu yàlla du mën a nekk kon nag loolu ñu ngi koy soññee bu baax. ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax cant goo xam ne cant gu ànd ak ngërëm la. nga xam ne fu sëriñ bi nekk ak fu sëriñ bi mën a wootee mu ànd ko ak moom mii Toumisactu point net mii nga xam ne lépp yi sëriñ bi moom moo koy moom moo koy jàllale ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye yëmut ci ko bi fu nekk foo xam ne ñu ngi fay woote wàllum diine wàllum information wàllum lu mu mën a doon ma ngi koy jàllale ci anam gën gën a sell gën anam gën gën a rafete ñu ngi koy sant di ko gërëm te xam ne nag ëllëg taskaru xibaar am na wàllu wu rëy diggante moom boromam kon bu ci yëngu lu baax nag am na sas wu rëy diggante moom kon nag ñi ñaan yàlla yàlla def ci barke mu siiw lool te àgg foo xam ne fa tele yëpp di àgg barke Cheikhul Khadim ñi ngi sant bu baax di gërëm